SB Printing and Design dama bëgg ngeen jox ma noppa bu baax bi yéen ñi nga xam ne ni da ngeen am seen kër yi ees yéen ñi nga xam ne ni da ngeen am ay boutique wala ay salon wala lépp li ngeen xam ne ni méngoo na ak euh, wàllu peinture ak design jokkoo leen ak ki nga xam ne ni moom mooy Owoc bu Bojang xarañ lool si liggéeyam euh, xam li muy def mun ko euh, te di ko def. SB Painting Design lépp loo leen ma si xeetum design paint and everything li ngeen soxlaa si seen boutique seen néeg seen këri ees yi dama ne jokkoo leen ak moom si 331 34 15 331 34 15 mu nekk foofu si ci Kistown jokkoo leen ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy SB Printing Design ñun designal leen ba seen xol sedda lii seddaat sa xol ñun loolu moo ñu soxal SB Printing Design Supersonic's money transfer is giving you an unbeatable bonanza from now until the end of October. Yes! From now till the end of October, you stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland with Supersonics money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonics money transfer.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 rise of coronavirus cases in the Gambia. The Carnifing General Hospital will now turn into a COVID-19 treatment center and due to the demand of bed space said by the Ministry of Health. We are here to talk to the management of the Carnifing General Hospital and also the people of Carnifing with regards to the hospital turned into a treatment center. I am Isa Tukoli for GTTV. No to that. Adam Ajala. Adama ñew nañ tay ñu fekkala fi yolo fi de ah dama de ñew fi ni moy suma rakay no nek fi, so duma de joge fi so ini tayam suma jaayee suba bëccëg fi la de rilas adama ga nga ne Kanifing General Hospital moy l'hôpital bu mag bu nek sen bor fi ni dañ ko turn into a coronavirus treatment center for covid patients yi waaw dégg naa ko mais comme nu ko dege gaay ñu ngi ñu ngee pour ñu max añun mu nekk si biir soo def nañ ko mais ñun léegi leen gën a ragal ngiri lan mooy ragal bi den ko doon dégg rek gisuma ko soo mu ma sori mais léegi ñu maa is ñu maa isil foo xam ne fu ma gën a jege moo tax loolu léegi maa maa ngi ragal loolu soo fiil boobu rek laa am pour loolu boo déggee boobu tamit mbaa sadaka mi fi dee jaay saf lan fiir moom ñun yëpp benn leen wax neen ko fi because ñun xam neen si bés xawma ñaata body moo dee romba fii si bés bi bés bi mais dama dee gis body yu bari anytime body mu ngee ñu ngi koo rombal soo suñ ise ñun body comme nit yu de soo moo tax ñun ragal neen balaa lool soo léegi tam soo leen ñu waxee ñu ngi si ñii fii loolu tam da ngay yow su amul fit pour loolu daal waaw. naka sa business. ah bi yombul léegi because gars yi dañu jot time soo da gis ne dañoo waa nga teel a dugga even soo amee chance pour ubbi sax nit yi su duggee comme léegi ku génn rek dinañ ko tiye soo xam nga ne yow ñooñu su génn nit yi su génnul. yow even soo toogee amuloo interest si si loolu because niti yi mooy sa interest so nit ki nit yi du am du ñëw so jarul një yow tam amuloo njëriñ pour toogaay xaaral li fi so nit yi su duggee yow tam nga dugga mooy sa interest bi rek so loolu moo ñu jox problème su business bi waaw. Ah. loolu mun a wax nguuri Adama Baro wala nguuri Gambia. ah nguuru Gambia bi lu ma leen mun a ñaan nañu mun a ñu gëna am firi lu opali dal lool la le mëna ñaan assalamu alaykum maaleykum salaam ah, ita todu mariama diallo ah, mariama diallo ita kamine keja nte den lebe la ri l'hôpital sija iman songadu ɗum ndim maale ɓe je wole la ri je kabirin kunun ko mantrik man sotono naataŋalandiije natinalman treatment o soton ah, doctorol iman sontoliyo ɗum naman seneya i buka ma fo dolle kata ngako fa e seneya i sina jarano a nda wo beteyatale ba o man beteya i koyen jara wo be man kole yantol bulun sita ngako fa e seneya bari ngamo i koye ɓe na min kela je wo yen ndimi ɓara kede nda ayen sila Euh, mero fo yakalamuta fana ko ko euh, kanifin hospital min yanko aketa hospital bati gambia ja iko sayin iba kala coronavirus treatment center walen ko ibe mol min yalan ko ye coronavirus soto ibe sambalan janna ke ijara bayri ministry ko uh, ida place oto mimi sanatorium to walen treatment center i, ke ijara dami uh, je sayin sayin ten a fatale and Eh, larang minnu bi je laaraŋol man si so ide be treatment o ñiŋ transfara nantu kaani ite e mina soto kaa fo a ah, nto danga min soto je wala kon ntaa ke la ntaa ke la kaatu jan sutuyaata le nte fele mbesiri ni corona virus be jak mun mbesiri la jan ne si la jan be bor la le i lafita le ŋe jaŋ soroŋ ntolu ka balu jan ne kaatu wal ye le ni e sote kana samba ko no ngabalu woto ntolu maŋ ñaŋ na sonnawol ala fa ye kowo ntolu kowo nta kela bii nta kela sooma ye fatan na ŋa njara ye ta palaso ñini ye ye ye lopitano yele woto yaake ya fa baro ye ko aye lopitano yele aye moolu samba je minu kuranta binta be baro le bari bii lafita miŋ kela baa tinana mbe bola je parce que ni ye a je ŋa jikoo le soto je bari sa ye maŋ jiki soto je kati kana kuraŋo le wo soto niŋ tata suwo kono mbaadiilela mbe jaarala la muntole ni mfata fata ye mbaade a fo ye kontolu kon taa nta kela ay wula ye lo baro ay wula ye lo mbatata le gambiyanoolu batata le ntata dawode simbay kuroda bayro kuroda bayro muna munyenti muna munyenti muna munyenti sa ala fita ban e, e, gambia be fa bang kaatu na ye lopitano je kuroda bayro lopitano ke je mbele be fa moo moo tambita ni nana la tiso kañanta ya cikandi muna temmaa kate ka courant fo ñami ala kate ngalo ñin kuwa dalin tol man songola bi man songola som ala kana baraka keje minista wa minista wulite i koy be o kela ala ta barako di lela i siwo ke no je min kat kontan fana jiko be jan ni ku ngaye de miena lopita ye parastamol di la e penicillin di la ye bor yeta ya di dingo o e fama yami sila nin mandula sotodu kata nin kurora be jam be falal sa ya fela siyata isi kura ya kura ya kura ta nalo pitan ye la ko ne ye fa ne nen na be jante na boro nyine jambe na boro nyila mi la sapika munambe na wola nta wokela ali wo itande ministal faye ko min be janga en tolu ko nta sonna jela nta sonna jela ni nga bo soto de ta kala je ha ni nga bo soto je ita kala je de kato ni be nyanta janna ha okay iko fanan mol mo jamal ya fole ko a ko mol minu be ka fa iko mol minu be ka fa nyin kurang la amanke to nyaati foy fana la taw ah, ko mol a ala ka jongo dolu fa la kurang ka jongo dolu fa kurona ka jongo dolu fa kurona ta nyim mo be fa no la birin kurona manna nka fale albalale boy tankan nsi duwa ke nga salo ke nga ala dani albala e fe femman albala siyandi te fo ngani ñoo yo jawya ani ñoo hasidiya ala nya nal ni nge hasidiya ala ñaɓen nal e ngami e wala ɓe murlante kan woto gambia li nga ke bakilin fakilin nga kairo ŋaniya banko kan nka sali nka duwa fo ala siñin albala bondin kugol kan ala ka joŋo faale kuroɗata in be fano wato hanin tamin kadi yamen nina wato sita n asatara corona kurona manfa bari jang hani kuŋoye dimi ni te ko kurona le ni fate ko kurona le ite bade la ite la mo soto le ya bade a ñama mune mu ñanti ala nga sey ala nga sayi bang nga sey ala kaŋ nga sayi ala kaŋ ŋa dani itolu min be ñaata ye sey ala kaŋ ye muru ni ye ke kilinti nga ko dada ha si banko dada ah, mero fo ita fana dum ike fan tankande nyin kuran wala ike la face mask dun ne because ya ka da min ten ka amanya ka yeah. okay so fana ko ika ka fo nya na moy lo fana ko ko ninyin iko hani wahti hana tara jan aketa covid coronavirus treatment center ti dula do bi sitano je fo ase bonan bono jan kata a ah, uh, eh, lopitan do to kata boro nyin lopitan wala mo jamaati wolam lobtane jamate gaƴanne soto banjun kane fe mbetamum totole hel sentandigol to wol ɓe jaranolale ɓam ni tata je hani ɓoro e buka soto ika safe ne yeta sam sarakunda hel senta taa je ɓan ni tata je kamune dila han tapac i koye ɓoro man soto ya safe yeta sa jarni nata si keñawoñayi si parastamol dila yamin aye sumaya ata kende ala ɓara si sumaya sila nin bota je yitan tol samba mun na kuran tole min belari kata wallandi nya mun tole me nde nyin kala wol e jita mun ha Ya minasoto ka fo enana e nana ta lopitano la karola anin atol fonga la jata ken ngamin sota e wole ma e bala fa soto nyi ngan jara nga janne soto anin tol fonga la jata ken ya kenya anin digol la jati kende ya kenya mamarigol la jati kende banko be la jati kende ya kenya nka soto janne mbe man sakunda dani la dukare asake alay anin kila ay jantum bul ay mbulo tun ko ko kana nka borna njay kan so paratamol lan kam ka to nga janne so jeni be bora sere kunde ta ni man paso sota ite fala siloka ni man mo ta min be bare ta fala siloka jan lo tani e drive for danin sa sa tale lafta tara latu kunna ibe malanan fayta sambala isiso inin dol sibe ye ya bala fasata ene sambana yena ya lopitane yela 25 odi la ya ya, ya sate 25 dala sinka wala jodi ke firit ha nyanta o jola dan kontol ye kenda du kare me man sakunda danila du kare ay bala fasato na baludula anen na jate kende adula asi otumbul si baluno jato si kende ya nga ala nga man sakunda nga baro dani wala anala government wala anala minister anala council wala nge be dani wol isi makoy ye makoy woto kato saya be siyari na ni man domoro ke be fala ni man kende ay man domoro ke be fala ni man jaral dula sotodo saya fela nata ita kanala fay si fadoro corona bukay mo be fade batale kam fa kati be kurandi man hayna la lopitane ko corona sai ni na tela ndi janjondo ibe fare la la rangole kan yedi corona ti yelle yete bade ale du karam be dani la yake ale anin kila yen tujan kana boro nyene du kare ye wal samba du la do yeta banko e sumaya tol min tuta je ni election o natan sadi no al ban nimbe fata ta wi nadi katunte carte fayno nimbe du mam nebe carte fayna itafai nola ibekuli nola nyani itabuli nola yo abaraka bake yo abaraka bake ngali jayi ngali tentu ala ma ñi ñoo si ala gambia banko kan ala o mari ala ma ala en tanka hadama din seytanola ala ma jam falan ala ma fala kayrol gambiya banko ala ma fala kairo la ala ma fala kairo la ala ma fala ala tento la ala ma fala kairo la kila nyima horomo kono alqur'ano horomo kono salatu fatiha barako bismillahir rahmanir rahim horomo na darjo ala ma o darjo ji la gambiya sala kende al corona tielo ala me sala sahala minu yaton minu ma soto nak ala ma ko dindi la wala ala kana nyati lendil ayeta abota dami ngatele yalon tol mansu la corona corona man nomoro ke no corona manku no corona hani kamoto e buka tano je e ka sila nin tata je fo do tata je le corona bala ba mune be ibe tano nyaani ite tano ite tano kata sila mbanko e be le corona so hani nta min fa ni kadi yamu malu fo ngasa to fo maso to mune yalo iyo amun tay danke ne atal do wala ne natal lon kun tan ni kadi yam mbata tale ala ya long na yo long mbatata la fayel gambia nol koy batata i batata corona lal silang ay kenya ke corona la bang wakkati to leyalo ma abe kerind, aɓe kerin bari si kenya kala fo min corona golan kan ikana kana corona ɗum ɗin kan ka corona nata jandoro a sela ɗum be ka i ka kata marché inin ɓenta marché ga sawundi la nyaade banko be ta soto dukare yemɗani ngedani a ko ngedani dukare ntolle muy tolti tolle mun tolti ni yaje be ɗol ɓe séléri mbun kay be mo mal borondil alanin tol ntolu ɓaɗo lel min ɓe juturin ntolle cikandi santo woto fana hanni man fenkeñe surtout mbeɗami ga jati ke ndeya soto anin simaya ba yo mbaali konton na mbaali jayla adama ñim melan dal tem alaaji njaay yoro fi def tey ma dem maa ngi nii di driver taxi ngay daw waaw taxi driver laa de mhm. lopitaan bu mag bi mooy Kalifing General Hospital dañ koo def mu nekk léegi coronavirus treatment center for COVID 19 patients. ah loogee mooy ñu nen dee bee noonu rek. lu tax nga wax loolu. Ah, dama xam ne ne bi feebar bi bu gaa si hôpital bi te ñun si lii leen yaakaar dëkk bi dara amut ma laaj client nga nar a fi ñu yaakaar ne fi ñu si yaakaar kaay fi leen war a dundalee suñu njaboot yi ah. ak suñu papa yi ak suñu kilifa mag yi yëpp soo ñu war a fii gars yi mooy léegi dem dem ne kër yi rek ngeen dee raay naw ni ma laa gis dara yow gis nga fii nii gis fii dara suba ba léegi yaakaar naa benn two hundred laa am suba ba léegi benn two hundred laa am léegi nga war a asi nin ay nin na te feebar bii nii wax mën a am dara loolu moom xenu maanaam loo xamante moo loolu ah sant yàlla rek jàpp si yàlla rek nga xamante ni lii moom kon koy am na fi moom te ñu ne am na fi kay ah ñu sant yàlla ñu ñaan yàlla mu génn si rek man sama maas mu sama moto bi oh man dama ba sama fii dafa dafa booy léegi sama fii dafa booy dama maasa maasa maasa ba sama yepp boy legi sis ba waaw ba pare su ma mas bi legi dama dé ba ñak ni dama dé handa tusóolu sax ba pare sama noy bi du noy noy bu correct. wa loolu pour aar sa bopp. pour aar sa bi aar bop bi man mala gëna bëgg sama jàmm yaram man sama jàmm yaram man mala gëna bëgg yaakaar na kul na aar sa bopp yaakaar ko sa jàmm yaram loolu mo nga bëgg waaye mala gëna bëgg sama jàmm yaram dama ne sagar bi te du ma ko def ko sama bakan bi te du ma mën noy noy bu correct daf dé ñaq ba tay xep te ñaxa boobu noonu yaakaar naa baaxut yaakaar naa lu gaare olof njaay lu bu du olof njaay sax yaakaar naa téere yi jàngale nañ ko alxuraan jàngale na ko anglais bi jàngale na ko bi jàngale na ko bi ko loo xamante ne lu ngay noyee la si yow baaxut boo feebar la waaw ne laa ko gisee moo tax ma teg ko foofu noonu léegi nag loolu des mooy ma jëndaa bi neen dugal sama bakkan loolu moo fa nekka te yéen ñu na dee yóbbu nit yi suñ jógee si lopitaan bi di leen ah, yóbbu seen kër yi di isil fii nit yi pour dem si lopitaan yow noo gisee sa business bi su fuñ toll. ah léegi daal business bi mooy comme ñu xamante ne ñu moom ñun moom ñu feebar moom lañ dem mën a yóbbu fi ñu toll nii comme nit ñëw fi aussi malade ñëw jëla town trip wala ñu dem bëgg dem Jimpek ci wala Westfield nga waxante ñoom price nga yóbbu leen am ñoo xamante ni sax nga jël ñoo ni leer na kii amu xaalis nga dimbale ko ay loo xam ne taxante ba xam ne war jar mu ngi war a dem hundred days yi nga defoo ko daf fifty days waaw man yem naa fii nit koo xamante ni fii ba tentewul town trip ba mu àggee daal lu ma jox sax mooy loolu 75 ba tentee ba diggante hôpital ba tentee ba 75 xam nga loolu baaxut waaye comme dëkk bi nu mu fa demee la waaye xam naa daal lu mën a xamaa daal siis bu gars bi nga see si bi fii moo moom mooy torox nañ loolu ma fa nekk waaw moo ñun moom torox neen bi ko dëkk bi dara neew fi fu ñuy de yaakaar ni di tagandaa mo ne pour ka si am am ci li liñ fay si soxla doo ko si mën nga nga yaakaar ko fa léegi nga nar la asi li am ni Afrique cornaam ñu nar ko asi fii nii ah man de ànduma si de su ma mënoon daal ñoo bëgg si hôpital a eh, eh, si fay ne naka la nga waxte si stade bi woo si yoone Banjul bi foofu noonu xam na hôtel yi nekk foofu noonu ñu yóbbu leen foofu si xàll ba ñu faj foofu noonu waaye hôpital yëpp gars yi ku nekk ñu ne hôpital Kanifing bi jël nañ ko hôpital jël nañ ko Diamé Fane Johnson jël nañ ko léegi fi ne fan ngaa xam ne ni yow ku feebar fi ne foo leen la a yóbbu ñu yóbbu si nit ñi xam ne mooy loolu léegi tey émergence bu amoon a dem feneen de laa doo loolu pour lan te ñu si yaakaar léegi ah hôpital ka ah, hôpital yi hmm, na si xol man daal lu may man daal lu ma xam daa si corona bi daal nañ ko def léegi noonu Sénégal def rek suñu bañ si réew mi sukk waaw bi ko si réew bi doon doon fi bu yàggee dañuy sukk si dañuy sukk si biir mi dañuy def nuuru bi nuuroo nag ba ba dande diñ gaaw a génn waaw loolu daal moo fa nekk daal ñu bàyyi suñu xel daal si corona bi daal mooy rende bi daal moom laa ko daal raxasu mas comme ni ko gars yi waxee rek ñu def ko waaw waaye feebar bi ko mënu kaa daw moom siis ah nguuru Gambie gay si kàddu gu mujj gi mooy kaa di digal Adama Barrow moom muy bàyyi muy bàyyi muy bàyyi xel rek di xam nu muy defee a doomu aadama yi bu ko Anam Bara tegu si boppam doomu aadama yi ñoo ko ci teg te moom bi dee ba fekku rek mooy loolu da nga nga bëggoon am ti ñoom yëpp da nga koy ñàkk foofu da ngay waaw moo tax am na am na nu war a doomu aadama yi daal ba lu doomu aadama yi moom ci ah, ci mën koo may doomu aadama yi bi ko dene ne ah, moom yaa jiite réew mi waaye sa jiite yaa jiite yow rek dinañ si teg. ba nga gis ba am lu tax pour nga jiite réew mi loolu nag boo ko loolu bi lu ñuy gis yow rek dañ laa bàyyi waaw loolu de moo fa nekk du nuyu du suñ kilifa Adama Barrow moom suñ kilifa la moom ko baax la na wax dëgg yàlla amul benn problème waaye xañ na nag am na yéen yoo xam ne xamul ko waaye nit ki moom doomu aadama moom xelam du dee mat lépp du dee mat waaye xam nga sa xel moom bu matul moom am yoo xam ne am foog xel doomu aadama ñu daal ñoom motali la ko waaw comme muy déggante muy mu mën a understand loolu comme si bind ñi rek because bi gars yi mooy loolu daal siis. maaleykum. salaam siis naa def. tur bi. Idriss Saba. Saba fi def. maa ngi def ci eh, jaaykat eh, eh, suuk docteur ak business daal loolu laa loolu laa Idrissa mbaa yëg nga ne Kanifing General Hospital moo nekk lopitaan bu mag bii nii sa gannaaw. waaw ah, dañ koo into a COVID 19 treatment center moo nekk pour faj ñu am coronavirus yëg nga loolu. waaw dégg naa ko sama dëkkandoor yi ñu dëkk si kër gi nii Dembo interview na ma loolu ma ne ko loolu suñu ko amee dafa day xaw a métti si ñun fii interview bu mag la suñu school bi baa ngi su suñu génération school bi eh, hospital bi baa ngi ni te fii senta bi dafa day metti ci ñun dekandor yi ñu ñu fi deka ak ñun ñi saa ñu wàllakat yi day nek ci mbeda bi fii ni Johnson bi fii senta bu mag la fii dega suñu ko sañu waruta am fi fii bay ride normalement nit ñi fi la gana a ñu dee faj yu bari bari fi la gana a miin amaguñu senta bor bi budul bi suñ ko defee fii dafa day hawa sonnal nit ñi fii suñu warono am ben senta fi ñu ko wara def set suñu jangoro bi ñu def ko way area bi dafa day metti ci ñun trop by right fii waruñu ko war a senta fii waroon nañ seet feneen budul fii fii GRTS bi baa ngi nii school bi baa ngi nii hospital bi baa ngi nii eh, stadium bi baa ngi ni fii senta bu rëy la waruñu ko indi ay booru ker gi nii fii dafa jege kër gi fii ba lay ak STE yooyu noonu dafa day métti si ñun ñëpp parce que ma dafa day wàññi coalition si ko bi fii parce que ñu boota fii senta bu rëy la waruñu ko def. dëgga dëgga waaw ñu ko defee ne ñu ko xam ne wàllu liggéey bi la moo tax pour ñu am wér bu yaram boobu moo tax la ko war a def waaye yàlla si la joxee naatu bi kenn mënu koo def dara te yàlla rek moo ko mun a fajaale ñun tam soo gisee ñu jël ay face mask di musuñu ko am musuñu dégg a jumaa di tëj ñaan yàlla bi yëpp waaye xam nga ting si nu mu yàlla nuñ ko sooteeli nañ ko war a jaam yàlla rek ñu sant ko ñu xam ne dogal yàlla la waa nañ ko seet beneen area boo xamante ne nekkul si seen senta bi fii dafa day métti ñu ñun wàllu jàngoro yaak dëkkandoor yi daal dëgg dëgg ñu ko laaj ndax naa mun nañ seet benn centre boo xam ne waroon na sori tuuti at least ñu seet naka la ñu war a des suñu population bi fii population bi su nekkee fii health centre coronavirus bi ñëwee boor bi dafa day geteen suñu mbooloo yi nañu bàyyi xel bu baax baax baalal ma. waaw nag xanaa feel nga safe wala yow. sa business bi ah, ak coronavirus bi ak yow mii sa boppa mbaa fiir nga safe te sa ah, business bi mbaa mu ngee dem since the outbreak of covid since coronavirus bi ñu waxee ne am na Gambia naka la sa business bi nekkee di dem waaw temps boobu mu ngi tànne mun naa am yeneen saay ma foraat suma dépense si bi yeneen saay waaye fu mu toll nii kaar macha allah du ma wax ne ko maa ngi wer a werle sant naa subhaana taala borom bi te loolu rek la ñu yaakaare fu mu toll nii liggéey bi moom dëgg-dëggan doxul demewul noonu loolu fu mu toll nii ñu ngi xaw a gétten si loolu nañ ko baalante ak rek fu mu toll nii du si ñun ñëpp du sago tam yàlla ñoo ñu tegee naatu bi waaye naatu bi yàlla ñu yàlla simen ñu ko si jàmm waaw nga baalal ma. soo gisee tamit euh, ministre bi ak hospital management ñu ne dañoo isi fii nii euh, coronavirus patients yi ñu ne because fu nekkee di traité coronavirus euh, patients yi foofu noonu moo fees ba laal sax amut laal amut fuñ koo def. te loolu moo tax ñu ne dañ ko fii ici yow naka nga gisee loolu. loolu ni ma ko gisee parce que ma dafa dee war a xaw a sonnal si ñun ñoo xamante ne nu njëy jàng MBA fii eh, loolu si dalee dafa day métti fii tamit senta school bu rey la te suñu xasee am boor bi même si school de u demee ba ubbi dafa day nit ñi dafa day faible si loolu def nay wax ne léegi suñu hospital bi nekk na coronavirus fii senta bu rëy la war ñu foo suñ ko defee dafa day lorangal senta kan, fi sautuk lee auto ak e benen area yep ñu dé wara a tam joggé jógee bir walu area bi liggé nga xamné car ma sha allah liggé bu am solo mo tamu ñu bari ngiro bor bi euh office yi fi la gana fi la gana bor. ak laptaane bi ak e, wàllu walu yi dal fii si nekkee dafa day tejj area kan fi normal by right bu gënoy lolu na li yëpp suñu réew la te ñu ko yalla corona bi ñu am dega dega tammi tamit si ma sha allah ak katam borom ñu ko ñaan. a ah, nguur bi ka la la mun a wa parce que ma yalla so gisse mu wacce nguur du ken yalla mo koy def yalla mo koy may waye du buga buga mota ngay am nguur wala alal wala ay ham ham, lolou ndogal yalla la nguur bi tamit si ko beneen place beneen place amul boo xamante ne fu ñu war a def suñu jàngoroy Covid 19 bi xara mais ñu set rek ñoo xamante ne ndax am na benn brève bu mu nekk si gannaaw hospital bi diggante euh, docteur Mbow ak France boobu noonu moo xamante ne ñu dee war a dem coronavirus yi ñu bokk ak ñoo xamante ne ñu dee war a ñëw fecc su nekkee loolu am na expenses boo xamante ne loolu mun na fi nekk si biir tami ñu wax ne ñu xam ne ñu dey war a faj ak ñu dey war a am coronavirus bokkul place ñu ñu ñëpp ñu xam ne eh, si place coronavirus si boor bi la war a nekk place ñu xaramte ne ñu war a faj boor bi la war a nekk léegi expenses ñu ngi si diggante ak morgue bi yooyu noonu loolu yëpp mun na fi xëj. ñu seet ñoom ñu yeggale ko mbooloo yi léegi kanifin municipal yàlla mu ko defal coronavirus place am bërë sàngaam waaye loolu bokkatul ak ñoo xamante ne ñu ko war a faj ay malaria ay paysan ñoo xamante ne dafa de gaañ façon yooyu noonu te waruñoo bokka su nekkee tamit loolu gis nañu expenses boobu noonu ñun seet si wàllu nguur bi ñu seet borom boo xam ne waruñoo mbooloo ak ñu am coronavirus loolu di si wet yaa suuf salaamaaleykum. maaleykum salaam. yow noo man maa ngi tudd Njëtti. ah ñëw nañ te ñu fekk la fi yow loo fi de. ah man hairdresser la salon laa fi amee. mbaa yëg nga ne lopitaan bi mooy Kanifing General Hospital bi euh, dañ koo turn into a coronavirus treatment center. waaw yëg nañ ko yëg nañ ko yëg nañ ko from the radio ak tamit nurses yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii nii. te ñun ñoo ñooma bokk place bi di liggéey waaw parce que ñoom ñu ngi ci lopitaan bi ñun ñu ngi fi amee salon ñeneen ñi ñu ngi jaay lekk ak yooyu. waaw yoon noo feel euh, boo déggee ne lopitaan bi dañ ko toon euh, to a coronavirus anyway feel naa sympathize feel naa sad parce que anyway li tax ma feel mooy ne am na certain nit ñoo xam ne ñu ngi fi di fi ñëw di fi liggéeyee ñeneen ñoo xam ne duñ noos dañ fee ñëw amuñ doole amuñ jëkkër amuñ doom bu leen mun a dimbale waaye danga dee gis ne dañoo toog a ndéewoo di ko fi ñëw jaay di toog a añ di ko fi ñëw jaay di dem di dépassoo di lekka ak seeni njaboot gi ñaareel bi tamit ñu ngi fi am brodas yoo xam ne tamit ñoom i tamit yaakaaruñ dara lu dul seen taxi yi ñoom i tamit su su su borsatee fii lañoo ñëw fana faraatu see mun a yóbbu tamit seen kër seen jabar yi ak seen doom yi den kon su nekkee ne indi nañ fi patience yi kon dafa mel ni ñun ñi nekkee boor bii nii yëpp ñun ñëpp dinañ sofa parce que su nekkee ne comme mel ni hand to moom la fi moom lañ fi dëkkee dangaa ñëw xëy suba nga ñëw liggéey si loo am yóbbu si sa famille den su demee ba sa place tëj loolu mooy ne xiif bi ñoo wax ne dafaa am kon dina am te kon su boobaa dee dina bari parce que xiif rek feebar la saakaatuma nga war a xiif ba pare war a am feebari coronavirus kon loolu kon dafa mel ni kon àddina si dina jeex. especially here Gambia wala Africa parce que African si yëpp hand to moom la ñoo dundee waaw. Mbaye feel nga safe boo déggee ne fii nii dañ koo turn into a treatment center. no feel ma safe really parce que anyway man fii laa am salon te waxtu bu nekk maa ngi fi te danga day gis ne léegi-léeg patient si ñëw. léegi li nga gis am patient boo xam ne sax dara dafa dugg ci biir noppam bi wala ci bakkanam bi den fii lañ dee ñëw ut see pin hair pour mun koo kilip pour génnee li nekk ci noppam bi wala ci bakkanam bi te always ñun dañ dee contact ak patients yi léegi-léeg ñu soxla ndox bu tànga fii lañ ko dee utsee dégg nga léegi-léeg ñu soxla xorom fii lañ koo utsee léegi-léeg ñu soxla glace fii lañ koo utsee den kon dafa mel ni am not safe waa parce que ñun ñu fi nekk ñëpp we are not safe waaye mënuñoo toog li tax mënuñoo toog mooy ne fuñ jaar ñu am lu ñu ut si pour mun a yóbbu suñ kër yi waaw loolu la naka la sa business bi since the outbreak of COVID 19 bu mu na ko lu bare bare bare bare parce que client yi ñemeetu ñoo ñëw parce que si area lopitaan bi la. before sax dañ daan ñëw waaye depuis bi ñu déggee news bi ne dañ fee indi patients yi den genn wàll gi yëpp dañ bàyyi ñëwatuñ waa den dama nekk rek di ubbi nii rek bañ a toog kër waaw loolu la loolu laa def. Euh, tamit dégg nañ ne. Euh, soo gisee ñu jël decision bii nii it's because of lack of bed space ah, te yow nga nekk ah, ku manage saloon wala ku moom salon ah, te nga am employé tamit other young people so how does it feel knowing ne comme at the end of the day sa business it will have an impact on it. miserable parce que man su ma toogee xëy na dinaa am lu ma denca waaye ñi nga xam ne sama employé yi la xëy na ñoom amuñ luñ denca te ñoom itamit xëy na ñi ngi am yaay buñ jox wala doom boo xam ne dañ ko war a jox ndéewoo ak yooyu waaw. Lady, what would be your last words to the government of the Gambia waaw li ma am pour wax rek mooy ne am nañ first option war nañoo toog am second option with third option. then first option bi wax nañ ne dinañ fi indi patients yi then second option bi war nañoo seet patient yi nga xam ne ñoo fi am cancer diabetic with other sickness fan lañ leen di war a def parce que ñooñu tamit dañ need medications We need treatment te ñooñu duñ mun a nekk tamit ci biir kër gi su nekkee ne kër gi tamit ñi fa nekk munuñ leen a faj ci lopitaan bi lañ mun a ñëwee faj si third option bi. ñu seet ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk te tamit nekk doomi Gambien nga xam ne amuñ fen fii lañ am fii la ñoo liggéeyee mun a toppatoo suñu waajur yi mun a toppatoo nit ñi mun a toppatoo jàmbur yi nga xam ne ñi ngee ñëw ci loppitaan bi te amuñ doole te ñun ñuy jël suñu alal di di leen ko dimbalee waaw loolu rek laa amoon. man maa ngi tudda Ndew Samba. Ndew Samba yow la fi def tey. ñun fii lañ jika ñoo lopitaan bi ñoo dendoo. te ñuus bi keroog ñëpp déggal nañ ko. news ban. news si corona bi ñu wax ne moom la ñoo indi si lopitaan bi Serekunda hospital biñ ko déggee ba léegi ñun kenn nelawut dégg nga ndig estate dafa xat dafa xat-xat boo xam ne loolu xëjut fii xëjut fi kenn kenn nelawatut te lopitaan bi fii jàppale na fi ñu bari ci este bi ñun all the time ndox dañ ko dee ñaaka si lopitaan bi la ñoo rootee dégg suñ ñu ngi am suñ ay xale yi xale yi kenn mënul leen a téye kenn mënul leen a téye loolu moo tax ñun fii kenn mënut nelaw lopitaan bi am na side yuñ fence am na sayit yoo xam ne fenn suñ ko soo nekkee si sa kër yaa ngay jàkkaarloo lopitaan bi li nekk si biir yëpp yaa ngi koo gis dégg loolu ñu ne dañoo indi fii patient yi coronavirus yi loolu day moo ñu metti musuma wax télé musuma feeñ télé ñun ñëpp nag Gambien lañ te baro ñun mi ñun ñëpp ko sànnil karta bi ñoo campagne fii dañ ko campagneal tiisaat dañ doon génnee suñ oon xaalis di ko jënda di ko jox nit ñi léegi suñ ñëwee ba teg ko ci dëkk bi suñoo dogal dara war nañoo sóoraale nit ñi nga xam ne ñoo leen fa nekkaloon démba bu tey neex rekk ñu faate démba ñu ngi koo ñaan mooy suñ kilifa réew mooy suñ njiiti réew décision bii gaa yi jël ah nañ seet nuñ koo defaatee dégg nga dégg la feebar kenn eneewu ko doomi aadama natu bu wàcca si suñ koo ñitte da noonu ñun eneewuñ leen corona ndik am nañ ko xamuñ fuñ ko amee ñu ngi leen la ñaanal yalla yalla may leen wër yalla génne fi jangoro bi génne ko dal ci mboolem adina bi yépp way ñu ngi leen di ñaan rek ngir yalla ñu ngi leen di ñaan as khalifa nañ leen ñu bala rek patient yi buñ leen indi fi So gisé tamit ñu ne dañoo isi patient yi ni ñu gaay amuñ bed space moo nekk ah, coronavirus fi ñu ko nekk di ko fajee mooy sanatorium ah, ñu ne foofu yëpp dafa fees so amuñ bed space ah, moo tax ñu bëgg a use Kanifing General Hospital for um, COVID 19 treatment center yow loo gisee loolu because yow Gambien nga te bi ñu fa nekk tamit ñoo ñu Gambien ne so oh, yow yow sa réaction bi loolu lan la war a nekk. ni ma gisee loolu suma yaram daw na ndik ñaanu woon yàlla sax. feebar bi egsi fi dégg nga ni ñu eh, naka la tuddaati Ibola umpee maa ngi doon ñaan yàlla feebar bi mu umpa noonu Gambien ni bu mu egsi fii waaye soo ko seetaatee ah dëgg fele fees na waaye place yi nekk ci ci ci àll bi bari na foo xam ne nit ñi jegeñu fa ah estate dafa xat estate dafa xat kër yi dañ xat te lopitaan bi ak kër yi daanaka tali rek moo des dox suñ diggante loo rek moo ñu tiital de moo tax ñuy wax nii loolu rek loolu moo tax ñuy wax nii te lopitaan bi buñ ko fensoon sax ñu ne waaw waaye xoolal lii gestul ngeen gis ah fi patient yi war a nekk ah loo xam ne ñu ne ngelaw nge kenn xamut kenn xamut lii la ah ah daal la ñoo ñaan daal nguur gi ñoom ñooy suñ njiit amuñ pour forcer leen ndig sa kilifa kenn du ko forcer li mu wax waaye ñu ngi koo ñaan ñu ngi leen di ñaan ak minister of health seen décision bii ñu jël ñu baalal ñu rekk loolu lañ leen di ñaanal loolu lañ leen di ñaan waaw loolu lañ leen di ñaan daal ndig jaaxle nañ maa ngi wax sax waaye xawma ma sax lan lay wax ndig tiit te du man kenn rek ñëpp ñëpp ñëpp a tiit fi mu nekk nii ñëpp a tiit. sa njaay bi nag naka la ko coronavirus affecté sa njaay bi. fii gisatuñ gisatuñ client. gis nga boo ñëwee toog benn benn nit ñoo ñëw di jënda benn benn nit dégg nga di di depuis depuis depuis biñ biñ annoncé affaire bi ah <laughs> dafa over different dégg nga te ñun ñëpp borom njaboot lañ single parent dégg nga te du manqué na ñi ñi ñi yaakaar lopitaan bi fii bari na dégg ñaanuñ nag kenn ñëw fi di faju dégg nga waaye ñun ñëpp si suñ bunti kër yi lañ toog di ut luñ jox suñ njaboot yi ñu leen di ñaan daal ñu leen di ñaan aas kilifa ñu jàppale ñu rekk ngir yàlla waaw sa kàddu mujjee mujjee bi pour wax ko sa ah, government bi si wàllum ah, ñu jàppale leen si ñëwee seen protection ah, mhm. kon kay ñu ne léegi kay Kanifing General Hospital dafa nekk place boo xam ne dañ ko jël ñu def ko treatment center pour coronavirus patients ah suñ suñ ñëwee dey ñu xanaa ñu abal leen ñu dem toog ñu xaar yàlla. foole naa dem. ah dem toog suñ kër ñu dem toog suñ kër yi te suñ doomi ñun lañ yaakaar ñu dem toog suñ kër rek waaw ndegem loolu lañ bugga loolu lañ bugga ñun day ñaan rek lañ leen di def ñaan lañ leen di def nañ ñu jàppale comme niñ leen jàppalee woon ba tey fiñ toog ñu toog fa nañ ñu jàppale noonu waaw ñi feebar nag kenn éenewut leen ko kenn éenewut leen ko ñu ngee ñaan nag Gambia Gambia yan na fi yàlla def jàmm yan na fi yàlla def jàmm yan na fi yàlla tur ndox bu sedd guy guy guy ñi feebar noonu yàlla may leen wér meñ delluwaat seen kër yi feebar bi daal em fi loolu la ñoo ñaan yàlla ñu ngi leen di gërëm ñeen mi fi ñëw tamit yan na leen fi yàlla bàyyi yàlla yokka seen place ci barke salaatu fatiha foofu daal laa mun a em. please. Ah, i I'm Abdullahi. Touré. Um, Abdullahi, did you hear of the General Hospital? That's the kind of thing General Hospital being turned to a uh, COVID-19 treatment center? Yeah, we had the rumors that uh, something like that came up. Yeah. what can you tell us about uh, the uh, General Hospital, where it's where uh, it's at the center of the Carnifing municipality, and everyone is having access to the health center, it's now turned to a COVID-19 a COVID-19 treatment center? Uh, well, I've been here for a while, and then I've seen this hospital how it has been operating. Uh, most of the referrals are being br uh, uh, brought here. Even the private sectors, the private hospitals, they bring all their referrals here most of the time. So it being turned to a COVID-19, uh, how to call it again, bringing the COVID-19 patients here, it's, it, it's a little bit stressful for us and our environment because it should not be done here right now. Because with all the referrals that are brought here, uh, they will not have anywhere else to go uh, bring them again. So it, it's going to affect uh, the whole environment, the people around here, and it's not good for our own business. I'm a businessman. Uh, I've been doing this business for a while, and it has been flourishing a lot. But lately, you had this score what you used to have, what, what you used to have, and if it is turned into a COVID-19 center, we have no customers and then, right now uh, the lockdown is I know it's going to be extended so we're going to be sitting at home without having anything in our pockets so if it uh, if it is turned into that center I don't think it's going to be good for our business or the environment besides people live here and then I think it should be uh, isolated from where people live than here right now because this is an estate you see people every day and everywhere so if it is turned to that place the whole place will be like a shadow or something. So. Do you feel safe? No, I don't think we are safe. I don't think because right now there is a there's a guy uh, lying down that, right there, and then he's said to be sick and stuff. So if they could not take care of a sick person that is just lying down there, how, how, how can they take care of us that are like that are well? How can they take care of us? I don't think we're safe or anything of the type. Yeah. So what would be your advice to the government? Well, I think they should think uh, of a better place instead of Carniving Health Center because most of the hospitals refer their patients here if they if they have a problem with them. So if this turns into a, a COVID-19 center, why where are they going to take those patients to? So I don't think it's a good idea. For, yeah, for my own take, I don't think it is a good idea. Yeah. Uh, we are also in the time of uh, malaria season, and we all know how malaria do affect Gambians. And uh, the Kanfing General Hospital is one of the biggest hospitals in the Gambia currently, and also treating, uh, helping people to combat malaria. Oh, how, how disturbing is that? Very disturbing. Like I said, uh, the referrals most of the time is done here. And we're in the season of malaria, like you said, but if this place is turned into a COVID-19 center, how are they going to get treated? It's going to affect them like very, very much. And us too. So I don't think Mount take that. I don't think it is it is necessary for them to turn this place into a, a COVID-19 center. Yeah. Are you um, using the, the, the, the, protocols needed for the um, preventing yourself from this virus when, when, when you are interacting with your customers? Yeah, I, I try in as much as possible uh, to take all safety precautions. Uh, I use sanitizers, I use face masks when it's necessary. When I'm home, uh, uh, I try social distancing and everything that uh, that I have to do to prevent myself from getting sick or stuff like that. Yeah. How does the COVID-19 affect your business? Very much. It affects it very much because this business used to be flourishing. It used to it used to prosper because I've done this one time and then it was it was good, and now uh, it it affects it in anyway in everywhere rather because then you used to, what you used to score you don't have that anymore. It used to be a mini shop, but then by this time, this is the time I have breakfast. Since morning when I open at 7 or 8, I eat breakfast at this time. It's, it's more like brunch. But now, I sit for the whole day and it's a little bit crazy though. It is really affecting the business. Yeah, around this end, everywhere is affected. From the ones, from the vendors to the shops, the taxis and everywhere. Yeah, because you don't see customers anymore. Yeah. Well viewers, this is all we have for you today. We went to the Canifing General Hospital to speak to the CEO of the hospital. Upon arrival, we were told he went to the Ministry of Health for a daily meeting. And we went out to speak to the people around the hospital. Uh, from what we were told, they are pleading to the government to um, leave the general hospital for them. And also, a lot of them said that their business is not going as it was. This all we have for you today in Gambian Talents TV. Until we come your way, I am Isa Tukuli. You stand a chance of winning a bag of rice when you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland with Supersonics money transfer. Amazing! So from now till the end of October, every time you receive monies in the Gambia from UK, Europe, USA, Canada and Switzerland, you stand a chance of winning a bag of rice. Only 100 bags available, so hurry now and be part of the 100 lucky winners in this special unbeatable bonanza from now until the end of October with Supersonics money transfer.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 dama bëgg ngeen jox ma noppa bu baax bi yéen ñi nga xam ne ni dangeen am seen kër yi ees yéen ñi nga xam ne ni dangeen am ay boutique wala ay salon wala lépp li ngeen xam ne ni méngoo na ak euh, wàllu peinture ak design jokkoo leen ak ki nga xam ne ni moom mooy Ouyoussou Seku Bojang xarañ lool si liggéeyam euh, xam lu muy def mun ko euh, te di ko def ak SB Painting Design lépp loo leen ma si xeetum design paint and everything li ngeen soxlaa si seen boutique seen néeg seen kër yi dama ne jokkale nag moom si 331 34 15 331 34 15 ñu nekk foofu sa Serekunda ci Kistown jokkoo leen ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy SB printing design ñun designal leen ba seen xol sedda lii sedda sa xol ñun loolu moo ñu soxal ak SB printing design taaral sa kër taaral sa dëkkuwaay